Euh, bismillahi rahmaani rahim euh, ñu dem ci bindub xadis an ummi lmuminina ummi abdillah aisha radi aishata radiallahu anha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man axdata fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun rawahu lbuxaariyu wa muslim wa fi riwayatin li muslim man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun xadis bu am solo boo xamee ne day soññee ci def ndigal yu baax yi topp sunna cay moytandiku mbir yi nga xamante ne bidaa la mooy yi nga xam ne dañ koo sos ci diine muy mabbu diine mu ne soloo nañ ci Aïcha sunu yaay ju tedd jooju di Aïcha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñ mbir mii ku ci sos ku ci këree teg ku ci bakkanam dong suñ mbir mii nga xam ne mooy suñ diine ji suñ sariya bi ku ci këree sos ci loo xam ne bokk ci loolu lu luñ koy delloo lay doon mooy loolu baaxut delloo leen ko ko xam leen ne baaxut kenn du ci sukkandiku kenn waru koo def kon xadis bi day soññee ci sax ci diine li ñu yàlla digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey digal ñu ko yeesalal ko ci suñ diine islaam yeneen yi nga xam nag dañ ko ciy dolli mooy yi nga xam ne dafa safaanoog ndigali yàlla yooyu safaanoog moom loolu nga xam ne sax lee day jëm sowwu lii jëm penku nga xamante ni kenn mënu koo jaare fenn ba nurook lenn ci ndigal yooyu nga xam ne dafa safaanoog moom carrément loolu dañ koy delloo waaye nag loolu li muy tekki liñ tudde bidaa mooy loo xam ne dañ koo sos ci diine tam nekk loo xam ne day mabbu diine dafa safaanoo ak njàngum diine loolu mooy bidaa bi nga xamante ni moom la ñu wax ne képp koo xam ne sos nga ko ci diine ji ji nga xam ne moom lañuy ñu yàlla subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andil dañ la koy delloo yàlla nee na xul qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabiuni yuxbibkum allah waxaat ñu ne ni wa anna haza siraati mustaqima fattabiuhu wala tattabiu subula fatafarraqa bikum an sabili kon daal jëf yi nga xam ne baaxut dañ koy delloo nga xam ne amul solo lu bon a la bidaa bokk na ci ndax kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi naar kon nañ sax ci ndigal yàlla yi ak yonente bi sallallahu alayhi wa waxi yi nga xamante ni yooyu rek lay dëgëral la ci lay dellu muy yi boroom xam-xam yi wax nga xam ne lépp it ci li yàlla wax ak ci li bi dong lay lay dellu yeneen jëf yu bon yi nga xam nag bidaa sayyi ala yuñ sos la yoo xam ne dëppoowut ak sharia nga xamante ni dafa safaanook sharia maanaam sharia bu diglee lee day man ne luy tere moom loolu moom nañ ko moytandiku ndax ku ne xam na ne lu araam la lu bon bon la mbir la moo xamante Euh, luy luy luy alag nit ki la ki koy jëfandikoo kon loolu mooy man axdasa fi amrinaa haazaa maa laysa minhu fahuwa raddun gis nga it lafz bi mu ci andiwaat ne man amila amalan laysa alayhi amrunaa fahuwa raddun euh, maanaam bi moom day mal na rek benn la mooy képp koo xamante ni rek sos nga ci diini loo xamante ni dëppoowut ak sharia loolu danañ ko ko delloo ci kooku nag wal iyaazu billahi taala na xam ne yeyoo na tëkku yàlla. na xam ne it yayoo ne merum yàlla wala iyaazu billahi taala loolu du ko amal benn njëriñ ndax diine islaam mat na sëkk dara manqué wu ci yow ba akmaltu lakum diinakum comme matal nañ ko nag ku bëgg andi jeneen diine ju bees ju safaanoog diine yi nga xam ne moom la yàlla andi kooku moom luñ koy delloo la lu baaxul la loo lu koy alag rek lay doon u billahi taala tawfiq